ci gàttal ko al imam mohammad ibnu al munkadir mu bokk ci rijaalul buxaari ak muslim doonoon koo xam ne jaabir ibnu abdulahi di ab saxaabi yi ci keppaaram la yaroo mohammad ibnu al munkadir imam la woon ci madina ci ay jamonoom ci tabiroon yu mag yi la bokk nee na dem ba mel at bekkoor gu metti am nit ñi di def salaatul istisqa mooy li ñu tudde jullik mbaaw naan mbaaw naan nag ci lislaam bokk ak góor ñi sol yëri jigéen jigéen ñi sol yëri góor ñu jaxasoo di tëgg di def loolu yëpp yi caddo la waaye mbaaw naan ci lislaam mooy julli nee na nit ñi julli taxul mu taw mu teg ci ne ala ghayril aada nee nag loolu wuute nag la daan am nee na benn bis ma dugg ci jàkka yonent bi mooy imaam bi day teel dugg si neena na bi ma duggee ma gis ci gannaaw benn kenu nit koo xam ne ku ñuul la ma gis ko taxaw ci gannaawam te yëguma nee na ma gis ko mu julli ñaari rakka jóg tàllal ay loxoom di ñaan yow yàlla de ñaan yu gudd gudd la jaam yi say jaam lañ amuñu keneen ku dul yow soo wàccuwul sa ndox mi danañ lor. jur gaa ngi loru nee na di ñaan di ñaan ba mu yàgg ma dégg yëngu yi ci asamaan si nee na taw bi tàmbali di wàcc di wala ngaan bi mu daataan wàcce ay loxoom moom jëmm jooju nee na bi mu ko defee ma jaare nële dikk waxtu julli jot nit ñi dugg si ñi julli génn nee na ma ne waa ji danaa jéem a xam kan la ngir won la rek ñooñu seenu xel itam nag maanaam doonu ñu ñoo xam ne dañu yor mbaax tax ñu wër naan maa baax nee na ma génn bëgg koo topp ba xam kana nee na dëkk bi yëpp am ndox la léegi nee na ma génn man di xool fan laay mën a jaar ak yu mel noonu nee na ma séen ko mu xuus rek moom ci biir ndox mi dem faale wu ko sax nee ma jëm ko topp mu raw ma xaw ma ku mu doon nee na ca ëllëg sa ma bàyyi ko xel gis ko bi mu dikkee ñëw julli def ay ñaanam mu génn ma topp ko nag tey comme que am ndox amul ma topp ko ba mu dugg ca kër mu dugg nee na ma ne ah kon fii la dëkk dellu sama kër ba yoor-yoor jot ma ñëw nuyoo nee na bi ma nuyoo fekk ko mu nekk ci ëtt bi ndeke gan la ko fa wàcc goo xam ne ab uude la nee na tiim dàll di ëw di defaral nit ñi seen i dàll nee na bi ma dugg see rek mu wadd song ma imaam ah yow boo soxla woo defari dàll kay da nga ma ko war a wax man ma jël si la say dàll defaral la kay waaye waroo dox ñëwal sa bopp ba agsi fii nee na ma ne ko déedéet defar lu may dàll damaa bëgg na mu ne ma ci lan nee na ma nettali ko li ma gis démb nee na nett bi ma daataan àggal dafa mer dafa mer ba mer mi feeñ ci kanamam nee na mu ne ma ba ci yow sax ba ci yow sax nag xatta anta maanaam kenn muccul daal ci jay doomu aadama yi ba ci yow sax àgg nga ci di doomu aadama yi di yàq seeni jëf nee na daal di mer mer mu méttee métti nee na ma daal bi ma gisee mu mer ma bàyyi ko ma dem nee na bi ma demee ba ngoon daal ma fàttaliku mer mi ma ko merloo mu metti ma ma ne naa dem jéggalu ji ko nee ma ñëw nuyoo ca kër ga salaamaaleykum waaleykum salaam ana gan gi fi nekkoon day ëw ñu ne ah kooku de yow bi nga fi ñëwee tey xaw ma loo wax ak moom waaye metti na ko ba da génn rek mu boole ay bagages dem xamuñu fu mu jëm da génn rek mu boole ay bagages dem yoon kon xoolal xoolal jaami yàlla yooyu nga xam ne àgg nañ ci buñ tàllalee seeni loxo borom bi tabaraka wa taala nangu seen ñaan xoolal nit ñi nëbbe seen jëm kooku su doon nitu suñ jamonoy tey bu tàllalee loxoom bi ñaan asamaan si kii day continuer tàllal ba nit ñi ñëw fekk ko ndax ñu xam ne moo doon ñaan moo doon ñaan ba taw bi wàcc woo ko mën a loolu waaye bu ca ëllëg saa bu kii ñëwee di ko seet si ne ko dama laa gis ngay ñaan démb bu lañ ko ca tegu mooy ah waaw man de léeg-léeg suñuy ñaan moom borom bi tabaraka